لك دار السلام ربي وطوبى ليكن ربي في عما صعدوني ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kullu murit ñu ñaan borom bi yàggal ko fi lool mu ànd ak wér sëriñ Abo Mouhamed xalifatul Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacké mooy am mbégte lool ànd ak njabootug maam Cheikh Anta Mbacké gépp naka noonu njabootug maam Cheikh Sëriñ Afia Mbacké ak njabootug maam Soxna Anta Jaay Mbacké di leen yëgal bis bu mag bis bu rëy war a am te Daaru Salaam ajjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai 2023 di bisu ubbiteg jumaay Daaru Salaam di taalibe maam Cheikh Anta Mbacké di taalibe Cheikh Mouhamadul Mamoun El Hadji Abdoulaye Dia liggéeyal sunu borom foofe jàngale ci bërëb bu tedd bi waaye it euh, liggéeyal ko maamam El Hadji taalibe bi sëñ Touba di taalibe bu mag bu Maam Cheikh Anta Mbacke amoon yéene lool ci Daaru Salaam El liggéeyal ko it waaye bu tedd ba rahmatullahi alayhi Serigne Oumar Dia ñu ñaan suñu borom yeesal yërmandeem ci moom waaye euh, yaayam ju tedd ji soxna Astu Dia ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér Serigne Abou Mouhamed Mbacke di ci woo mbooleem jullit yi taalibe yi kilifa di alquranul karim amal fa yit bayaan waxtaane fa yit démbug jumaay daaru salaam daañ fa yit teewlu ay discours kilifa diine yi naka noonu inauguré ko dalloo jumaa ji julli fa ajjuma incha allah sëñ bi di ñaan na képp ku fa teew yiw ak tuyaabay dëkk bu tedd boobee ñu tabax jumaa ji yàlla jotale la ci ndax daaru salaam googee ñu ko tabax dëkk la bu sëñ Tuubaa Mbàkke xaadimu rasul njëkk a sànc di dëkk bu cheikh mouhamadul moustapha ak cheikh mouhamadul fadel gane si àddina di dëkk boo xam ni sëñ Tuubaa xaadimu rasul bi mu jógee ci liggéey bu mag bi fa la njëkk a yenni ko li ko sunu borom bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo ko rëddal boppam bi muy sanc dëkk ba njëkk fa jiiteel boppam noddal fa it boppam kon bërëb bu ni mel yiw ak tiyaabay kese la dajale bis baa ngoog yi ubbiteeg jumaay Daaru Salaam ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai 2023 Serigne Abo Mouhamad xalifatul Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacke di ci woo mbokki julit yi lahu taala rujuuxi min hidaaya ila daari salaam lati tubna bi tajdiidi